di ay jataay yoo xam ne nii yëpp ñu ngi ko jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa daaira di saytu jataay yi nga xam ne mi ngi am fii ci MK TV dellusiwaat nañu yéen ci fukkeelu jataay bi ci mborum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi toll woon ci bi nga xamee ne Seydina Jibril ñëw na ci yonent bi ba jox ko nubuwa gi ci digalul yàlla jottali ko xamal ko ne ko yónnente la nettali woon nañ xissa ba na mu demee yëpp waxoon nañ lan mooy waxyu ak anwaaxul waxyu waxoon nañ it jataay ba nga xam ne fa la ko fekke woon ak nako ko bi dunde waaye it waxoon nañ taxawaay bu rafet bu am solo bi nga xam ne soxnaam su tedd sii di sayyidatuna Khadija radiyallahu taala anha moom la taxawe lu jiitu yooyu yëpp waxoon nañ ni mu xamanteeg soxna Khadija mi suñ borom dogale seen diggante waaye taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci biss yu njëkk yi ci wax yu bi nam demee ca doomi baayam jooju ñu koy wax waraqatu ibnu nawfal yóbbu fa yonent bi la ko waraqatu ibnu nawfal wax ak moom it ni mu doon defalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko jàppaleeg ni mu ko taxawoo ci lu baree bari moom soxna su tedd si ñu naan sayyidatuna Khadija radiyallahu taala anha bi suñ borom dogalee sax yonent bi woote mooy ki ko njëkk a gëm moom soxna su tedd si nga xam ne jàppale na ko taxaw na ko ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee madinatul munawwara fekk soxna Khadija faatu na bu yàgg teewul da ko doon ko ci taxawaay yi nga xam ne doon na ko taxaw di ko tudd lu bari nag ci kanamu ay soxnaam di wax ak njàmbaaram ak mbaaxam lu baree bari ci kanam yi soxnaam doy na sëkk rek ndam soxna su tedd sii di soxna Khadija radiyallahu taala anha muy ne Jibril ñëw na fekk yonent bi sallallahu alayhi wa mu toog mu ne ko sa soxna Khadija mi ngi ñëw su ñëwee borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy jot li am nuyoo man Jibril it maa ngi koy jot lim nuyoo bu ñëwee it sun borom subhanahu wa taala mi ngi koy bégale ne defaral na ko kër gu yànj ca àjjana pale bu yànja yànj boo xam ne moom soxna Khadija moom moo ko moom li lépp ci bidaayab lislaam bi la ko Jibril waxee woon bi Jibril demee rek Khadija daal di yegg si ni ko Seydina Jibril waxee woon yonent bi ne ko jibril jóge na fi léegi mi ngi lay jottali nuyoo suñu borom xadija ne eskay yàlla day mooy jàmm mooy salaam ci moom la jàmm di jóge ci moom la jàmm yi di dellu mu ne ko it jibril mi ngi lay jottali am nuyoo mu ne yàlla na yàlla def jàmm ci jibril mu ne ko nee na borom bi subhanahu wa taala mi ngi lay bégale ne am nga pale bu yànja yànji ci àjjana loolu lépp di taxawaayu rafet yi nga xam ne doon na ko taxaw yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom soxna Khadija bintu Xuwaylid waaye it bokk na ci ñi njëkk a wuyu yonente bi sallallahu alayhi wa ci woote bi ci tàmbali bu woote bi Seyduna Ali ibnu Abi Talib man nañ ne ginnaaw Khadija ci biir kër yonente bi sallallahu alayhi wa moom mooy ki njëkk a wuyu woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa doon donte sax booba ndaw la woon loo xam ne fukki at la doon tollool wala lu ko jege dañuy wax naan euh, Abu Talib dafa amoon dafa jabootoon lool am bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax Abbas Abbas danaa ko tudd ca kanam ci yeneen jotaay danañ gën a waxtaanaat ci moom incha allah. abbas doom yi abdul mutalib la euh, doom la ci euh, abdul mutalib di bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi di rakk ci abu talib mi nga xam ne mooy waajuru sidna ali yonent bi daa wax abbas ne ko euh, abu talib day dafa jaboot dafa jaboot te dañoo toll ci crise bu métti jamono jooju dañoo amoon crise bu métti bu xewoon boo xam ne ci wàllu alal la woon ñàkk gu métti gu amoon mag est-ce que gisoo njabootam gi kenn ku nekk ci ñun am kum jël yar ko du gën loolu lépp ci xel mu rafetum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abbas daal di rafetlu loolu daal di jël jaxfar ibn abi talib yonent bi jël ali ibn abi talib loolu mooy sababu ali ne ci loxoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim doon doon ndaw lépp mu dëggal woote bi wuy si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci woote boobu naka noonu Seydou Ibnu Xaaris Ibnu Xaarisa moom it eh, aw turam dana waddaat danañ waxtaanaat ci moom moom it eh, ku doon liggéey la koo xam ne ci biir kër yonent bi la nekkoon moom it ci ñi njëkk a wuyu bi ci la bokk moom Seydou Ibnu Xaarisa nga xam ne lu jiitu woote bi lépp mi ngi yaroo wala mi ngi nekkoon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen jataay danañ ñëw ci sababu nekkam foofu ak digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it euh, àndandoom bi nga xam ne lu jiitu woote bi mi ngi ànd moom ba ni woote bi ñëwee mi ngi ànd moom ni yonent bi nekk marxala mag mi ngi ànd ak moom ni mu nekk madinatul munawwara ma muy gàddaay fu mu mën di jaar roq bu jaar ak fu mu génn yëpp mi ngi ànd ak moom bi fi yonent bi làqoo moom mooy ki ko njëkk a wuutu mooy sayduna abu bakrin as-siddiq moom it bokk ci ñi njëkk a wuy si daana wax sax naan moom yonent bi day mboolem ñi ñu wax woote bi yëpp yonent gi xaw nañoo am ak déng-déngal maanaam laaj nañ wala ñu wóorlu ba mu des Aboubacar moom ba kàddu gu yonent bi daanoo rek daa daal di wax ñaari baati seer yi ànd ak moom gëm ko ca lam nekk jël alalam jëpp nag ak njabootam gépp def ko ci woote bi ak bakkanam sax yàlla defoon nit moom mu yàgg a baax jikkoy Moustapha rek moo ne ci moom nee nañ moom naka jëkk ma ne mëseesu koo xam ci naan sàngara naka jëkk mëseesu koo xam ci su jootal xërëm wala jaamuy xërëm naka jëkk musuy su koo at ca màkkatal mukarrama naka jëkk kenn xamu ko woon ci lu ñaaw moom abu bakrin moom abu bakrin as-siddiq lam yasrib al xamra lam yasjud ila sanamin wal walidaani ma al awlaadi abraar loolu sëriñ bi tënk na ko ci bayit boobu ci raaya nee na day moom day musta su jootal ab xiram moom abu bakrin musta naan sàngara tey yàlla tawfeexaloon na ko ba mboolem waa këram yëpp muy waajuram bu góor Abdullahi ibnu Qaafa soxnaam ummu Ruumaan ak njabootam yëpp Aïsa Muhammad ibnu Abi Bakrin Asma bintu Abi Bakrin njaboot gi yëpp dugg ci lislaam kenn ku ci nekk am ci jaloore joo ci def moom njabootu Seydina Abu Bakrin As-Siddiq kon lii mooy tàmbali bi nag ñii la woon woote bi tàmbali bi ñii la woon ñooñu ma tudd ci biir kër gi daal soxnaam soxna xadijatu ak ali ibn abi talib mi nga xam ne dañ ko koo jox ak saydu mii ñu bokkal biir kër gi ñii la ak xaritam àndandoom boo xam ne nii ah yàgg nañ lool yàlla def ñu nuroo jikko lool ci jikko ju rafet jooju yëpp mi ngi ko jëlee ci Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam muy Abu Bakr as-Siddiq yàlla dogalit am ñeneen ñoo ay kilifa lañ ci ginnaaw maanaam ay kilifa lañ ci lislaam ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi duggee ci lislaam ci njàmbaaruk effortuk Abu Bakrin as-Siddiq ñooñu bokk na ca muy Seyduna Usmaan ibnu Xafaan mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifa ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu bokk na ca muy Seyduna Saad ibnu Abi Waqaas ñooñu bokk na ci mooy Seyduna Subayr ibnu al ñooñu bokk na ca Abu Hubayda ñooñu bokk na ca Abdurahman ibn Xawf juróom yi ma tudd yëpp ci al asratul mubashirina bil janna lañ bokk ñëpp dugg nañ ci lislaam ci loxoy Abu Bakrin as-Siddiq moo leen présenté yonent bi moo leen wax lislaam ñoom it ñu nangu lislaam ji ci mbaaxuk Seydina Abu Bakrin lislaam ji tàmbali di ñëw ca tàmbali ba sax bi woote bi tàmbali ci jibaal yi ci bitti màkk ci xeer yi foofu lañ daa daje ñu dem ba nga xam ne bis bu set dana am ñu ci yokk bis bu set dana am ñu dugg ñu mujj jël daarul ar al arqam ibnu abil arqam di koo xam ne nii mi ngi bokk ci xabila buñ naan bannu marzum këram nekk ci jabalu safa foofu la kër ga nekk yonent bi sallallahu alayhi jël maqar boobu place boobu noonu moom kooku ma tudd muy arqam al arqam ibnu abil arqam ci Banu Maxzum la bokk tekki it euh, mujjoon na dugg ci lislaam gàddaay yoon na euh, teewe na xare yëpp euh, radiallahu taala anhu rafetal na ak lislaamam moom al arqam ibn abil arqam lislaam ji di yokk ñu xam ci ay tur yoo xam ne ci tàmbali bi ñoom la woon ñooñu nag ña ci ëppoon ay duafa fuqara masakin loolu lañ woon ay nit ñoo xam ne ni nit ñu ñàkk lañ nit ñu néew doole waaye it ay waxambaane ñoo ci gënoon a ràññeeku bokk na ci Seyduna Bilal danañ ñëw ci moom bu baax a baax a baax ak alu Yaasir muy Yaasir ak soxnaam Sumayya ak doomam Ammar ak ñu baree baree bari ñoo xam ne nii ñu ngi tàmbali di yokk ci diine ji di dugg ci lislaam ñuy dajaloo ci kër googu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam boroom xam-xam yi nee Euh, bokk na ci li taxoon yonent bi jël maqar bi li lépp day wane xekk ma maanaam euh, ñaw yonent bi ak xam-xamam euh, ak xam-gum xam waa màkk nga xam ne def naa ñoom technique ak xikma ba réussir bu baax a baax a baax a baax ci marxala bu ma a ci maraaxil yëpp ba keroog ni nga xamee ne bisub al yawma akmaltu lakum dinakum matal na lépp loo xam ne nii rek suñu borom yónni woon na ko ko gën gaa rafetalu euh, jot li gën gaa rafetalu matale euh, moom Seydina moom yonent bi sallallahu alayhi wa nee nañ bokk na ci li taxoon mooy dañoo xamoon ne Qurays ak Banu Maxzum gi nga xam ne fa la euh, al arxam ibn abul arxam bokk ñooñu xel nanguwut daal waa Makka maanaam kibaaru kibaaru Qurays maanaam kilifa yi nekk Makka nga xam ne ñooy yéefari mag yi ñoom dawuñu bàyyi xel dal nanguwuñu woon ne Muhammad sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana war a mën a jël ci kër waa Banu Maxzum di fa woote maanaam loolu bokkoon na ci système boobu yonent bi jëloon loolu bokkoon na ci li nga xam ne kenn foogewu ko woon ndax ñaari famille yooyu dawuñu laale ci histoire bi ci desaatin mooy kër ga làqoo na làq goo xam ne bokkutoon ci garam place yi nga xam ne nit ñi dañ fay faral di jaar waxtu wu ne nee nañ biñ nekkee daarul arxam ibnu abil arxam nekk nañ fa diir bu yàgg yàgg boo xam ne daanaka jege na ñetti at yoo xam ne nii yonente bi mu ngi woote mboolem loo xam ne nii jóge na ci suñu borom jaar ci jibril wàcc ci moom buñ daree dajee ca daarul arxam ibnu abil arxam mu saleen ko leeral leen ko bu dee ndigal luñ war a jëfe mu sant leen ko bu dee tere goo xam ne dañ koy tere ñoom ñooy ñi ko njëkk a bu dee alxuraan la yoo xam ne it ñuy jàng ñoom ñooy ñi ko njëkk a jàng diina ji di yokk di yokk di yokk ba nga xam ne daanaka mi ngi am fanweeri nit nee nañ bi nga xamee ne daawa sirriya mi ngi bëgg am ñetti at daanaka li dugg ci lislaam matoon nañ ñeent fukki nit yoo xam ne ni ñi ngi ko doon nëbbu nag ndax borom bi subhaanahu wa taala ci boppam moo wax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko xum fa ansir daanaka ndigal yi bokk na ci ndigal yi njëkk wacc wàcc njëkk a wàcc xum fa ansir mooy jugal nga xuppe xuppe googu nag dafa itlaaq rek borom xam-xam ne nañ ne ko jugal nga woote jugal nga jottali woote bi nga di ko defee nag anam boo ko mën a defee anam boobu bokk na ci muy mu njëkk a jël étape boo xam ne nii lu lu lu lu technique la boo xam ne nii bu yéeme sax muy jël ñetti at yoo xam ne nii li muy wax da koy yemale ci ñim gën a wóolu ba saleen ba dugal lislaam ci ñoom ak imaan ju mat sëkk ba nga xam dañ leen jaral lu ne jaral leen seen bakkan te loolu la tàmbalee loolu mooy li borom xam-xam yi tënk naan étape bu màkkatal mukarrama kat ñaari étape la waat ñaari xaaj la xaaj bi ñu tuddee ad daawa asirriya ak xaaj bi ñu tuddee ad daawa aljahriya ad daawa sirriya nag mooy woote bi nga xam ne bañ koy woote ndànk lañ ko doon def mboolem lu ñuy wax rek dañ naan na yem suñ biir na yem suñ diggante bu ko génn lu ñuy wax it danañ ko nëbbu ànd ak sutura ba àgg ca daarul arxam ibnu abil arxam ñu waxtaane ko bañ demee nag ba nga xam ne ñetti at yi nag mat na sëkk bay dugg ci ñeenteel at bi ci la ko suñu borom nag sante na ko nag fasda bi maa tu'mar yàlla nag xamal ko ne ko woote bi nag léegi wëratuta yam ci seen biir yi ñii yéen ñii rek woote bi nag dañ ko war a yaatal borom xam-xam yi nee nañ euh, xikma bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ci tànn ad da'wa sirriya maanaam woote goo xam ne woote ndànk lay doon seen biir lu tolloog ñetti at loolu tegte wutoon ne dafa ragaloon ndax lii wane ne ku ko ëpp fit amut li koy war lii wane ne ku wóolu yàlla la mooy étape bu mu mas a boo xam ne dafa laaj bakkan rek moom ak wu nitam wane nañ ko joxe nañ ko kon lii day wane xikma ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon mooy étape bi njëkk ci woote gi ñu woote woote goo xam ne nii woote seen biir la mu yem ci seen biir booba nag daanaka métitali tàmbaleegul ndax yëf yi tàmbaleegu te siiw ba mu tàmbalee ba nga xam ne nag ñi fi ñuy dajaloo muy daarul arqam ibn abil arqam arqam mbooloo ma ña nga fa commencé bari jaabante ba ñu ngi fay bari nit ñi ña ko commencé yëg di ko déyante dajanteeg nag loolu ndigalul yàlla daal di wàcc xamal ko ne ko nag na yaatal woote bi bam ne ko na yaatal woote bi ci la ko yaatal yaatal goo xam ne nii ba mu ko tàmbalee nag ci la mettital yu metti yi nga xam ne mooy gën a metti lool tàmbali ca màkkatal mukarrama te loolu incha allahu taala ci bind yi ñu jëm ci lañ ko fas yéene waxtaane kon mbokk yi lii mooy étape bu njëkk bi nga xam ne ginnaaw bi wax yi bi wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yii ma tudd léegi ñoom ñooy ñi njëkk a ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jël kër googu ma wax muy daarul arxam ibn abil arxam foofa mooy école bi njëkk ci lislaam foofu mooy jotaay bi njëkk di daje di woote ci lislaam foofa sax fa la Seydina Omar ibn al Xattaab dugge ci lislaam ci incha allahu taala jotaay bi ñu jëm ci dinañ wax ci islaamu Omar euh, islaamu Hamza nga xam ne mook Omar ñetti at dañ rawante ak mboolem ñi nga xam ne nii duggaan nañ ci lislaam ci bérélu woote ak ñi gënoon a fés